Mamadou Mara Sarr maa ngi lay nuyu. oui Ndeye Comba Mamadou Mara may fàttali yow yaay chargé des affaires institutionnelles bu bureau mm-hmm. de l'organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique au Sénégal membre bu mouvement pour la transformation nationale euh, déjà euh, ban euh, taxawaay wala gis-gis nga am si décision bi njiitu réew mi jël ne du bokk ci élection présidentielle bu 2024. merci beaucoup Ndeye Euh, maa ngi rafetlu bu baax ci question bi euh, je pense que euh, sama gis-gis ci décision président de la république décision bu mu jël ba nga xamante ne nee na du bokk ci élection présidentielle yii ni di ñëw en deux mille vingt quatre je pense que décision boo xamante ne moom la sénégalais ak adduna bi yëpp doon xaar ci boom décision bi mooy décision boo xamante ne tax na tey jii nii dëkk bi mun a am souffle maanaam mun a respirer parce que nit ñi ñëpp dañu doon douter dañu doon douter ci maanaam décision bi président nar a jël en deux mille vingt parce que deful lenn lu dul respecter ay kàddam maanaam respecter ay kàddam parce que en deux mille seize deux mille dix sept waxoon na ko nee ne deux mille dix neuf deux mille vingt quatre mooy mujjeetal mandat am moom mi di président Macky Sall bind na ko ci livre bu mu naan le Sénégal au au cœur au cœur du Sénégal ci livre bi ci dernière page bi bind na ci nee na que deux mille vingt mooy sama dernier mandat maanaam pour présenter woo léegi nag bu demee ba jël décision bi te ñëpp xam nañu président de la république keroog discours bu muy wax discours boo xamante ne man de ci discours am yu ma jot a gis yëpp discours bi passé musuma lu ma ci jàngat ak lu ma ci gis musuma ko gis ci yeneen discours yi président bu muy wax da ngay xam ni kii nii nu muy waxee nii. décision boo xamante ne décision bu ferme décision boo xamante ne mu ngi koy doog a génne fu muy waxee noonu noonu te décision boo xamante ne da ko tibb ci xolam da ko dafa pare pour wax ko xaw ma nan laa koy wax dafa pare pour génnee ko sans mu laajte avis de kii ko ce soit boo xoolee nu muy waxee te tamit wax na nu ma ko waxee nii wane na dëgg-dëgg ko moom c'est un homme d'état parce que am na fi ngay toll. yenn décision yi nga war a jël même sa jabar waroo ko laaj aviyam parce que dafa doon ay décision yoo xamante ne ay décision yu sensible mun nga ko waxtaane ak sa jabar wala nga waxtaane ak sa xarit moom fekk gis-gis bi nga ci am ak tolluwaay fi nga ci toll moom amu ci geneen gis mu détourné la mu génnee la ci xel boobu noonu yóbbu la moom ci gis-gisam fu mu toll su boobaa mun nga ko décider après mu nekkaat problème ci sa kaw donc yenn décision yi moom décision boobu la jël décision boo xamante ne boo koy jël maanaam doo ko échanger ak kenn doo ko waxtaanee ak kenn te foofu la ñëpp doon la ko ñëpp doon xaaree parce que boo gisee ni décision bi bett na sax ak ñu ànd ak moom bett na sax ay nitam parce que ñoom ñëpp mësuñu ko xaaree foofu dañu yaakaar ne woon président de la république day présenté waat day nekkaat candidat mais ñaari affaire laa ci jàngat pour man comme que dem na ba jël décision ne. man dama xamul lan moo waral mu mu jël décision bi mais dama jàngat ne président de la république bi jël na décision bi waaye waaye am na peut-être leneen lu mu préparé parce que bu waxee ne maanaam duma ma présenté waaye constitution bi may na ma ma présenté woo lan moo tax je pense que bu war bu dafa waroon rek wax ne du ma présenté woo bañ ci sax boole constitution bi may na ma parce que day indi yeneen doute ci nit ñi beneen bi tamit mooy bu muy terminer nee ne lu des ci samay mandat maanaam dinaa ko gérer ak nu ma ko war a gérer nga xamante ne fitna yi ak leneen ak leneen lu fi am ci réew mi yëpp dinaa ko gérer ba bu may jóg fii nii lépp dootu fi amati donc nit ñi tamit am na leneen luñ ci gis. loo xamante ne peut-être ñu ngi xalaat ci loolu je pense que euh, loolu la moo am soo xamante ne ci lu ma ci gis par rapport ak discours bi waaw discours boo xamante ne ñëpp fii lañ ko doon xaare même ñu ko bañoon bëgg nañ ko ci ndaxte mooy lu gën ci réew mi. Mara est-ce que yow d'accord nga ñu modifier code électoral bi pour Karim Wade Khalifa Sall mën a bokk ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre te pourtant ñu ngi euh, war a euh, am koppar yoo xam ni war nañ ko verser trésor public bu Sénégal en tout cas dañ leen a daanoon euh, ci ay détournement de de deniers est-ce que yow d'accord nga ñu ñëwaat rek bëgg bokk noonu. man ci wàllu code électoral ci wàllu justice. man lu ma gis mooy dañoo war a war a vérif dañoo war a verrouiller maanaam ñi tëj maanaam ci loi yu nekk ci justice bi yëpp moo gën bis bu nekk bu la neexee bu la arrangé nga indi benn loi bu la arrangé wul nga indi waat beneen loi loolu day dem ba jaxasee réew mi fu mu toll actuellement donc concernant le cas Khalifa ak Karim Wade man si sama gis-gis mooy. Euh, euh, Euh, nit euh, ku këpp koo xamante ne war na war a mën a bokk ci élection présidentielle yi dafa war a bokk maanaam dara waru ko tere bokk ci élection bu dee conditions yi yëpp may na ko pour mu mën a bokk ci élection présidentielle yi léegi nag lu des mooy diggante xalifa ak Karim d'après lu fi jàll yëpp ak lu ñu jot def ba sénégalais yëpp yëg ko ñu ne ñi am lu ñu leen jiiñ def nañ ko ba léegi loolu leeragul si suñu bët yi ba léegi ñoo ñu taxawuñu bañu naan ñoom def nañu wala defuñu léegi nag balaa ñuy egg ci modification code électoral ay affaire yoonam pour ñu intégrer waat leen ñu delloo leen ci wàllu candidature ay affaire yoon nañu leeral mbir mii ba pare ba Sénégal yi xam nan la demee man pour man noonu la war a demee dañoo war a leeral mbir mii bu dee dañ leen di amnistier wala ñu gracier leen ñi xam ñoom def nañu wala defuñu mais mu neex la nga écarter nit ki mu neexaal la nga indiwaat loolu buy am ci réew rek maanaam injustice moo fay daw ba tey loolu warul nekk ay éliminer sa adversaire politique nga bugg ko jaarale ci justice pour éliminer ko boo ko buggee indiwaat ko tamit nga bugg jaarale waat ci justice ay affaire loolu yëpp dafa war a deñ justice maanaam justice bi code yu fa nekk ak lu loi yu fa nekk yëpp dañ ko war a verrouiller ñu tëj ko kànnaar ko ñu voté ko benn yoon ñu kànnaar ko nit même président bu mënta ñëw du mun a am benn sañ-sañ bu buggee éliminer benn adversaire politique muy jaarale ci loi boobu noonu pour indiwaat ko yóbbu ko assemblée xam na ne moo am majorité pour éliminer kooku bu buggee bu bu soxlaa tam tamit réintégré waat ko ci biir maanaam compétition bi mu ñëw mu jaaraat ci beneen loi pour indiwaat pour man loi yooyu noonu dañ ko war a tëj benn yoon mu jeex man loolu mooy sama gis-gis lu si des mooy ñoom ñaar nañ ñëw ñu taxaw ñu leeral affaire bi askan bi yëpp xam nan la demee. bu dee ñoom ñoo ko def wala defuñ bu dee dañ leen di baal wala baaluñu ñu dem man loolu mooy sama gis-gis. Euh, naka gisee déclaration bi Ousmane ko def ci France 24 moom nee na euh, am su jàllul pour 2024 dafay yàq réew mi yaxeet kawo daal la fi indi loolu la wax. waa discours boobu moom wax dëgg fa yàlla kenn mënu cee ànd kenn àndu ci parce que Sénégal moom réewu jàmm la réewu teraanga la. te dafa am lu suñu maam yi bàyyi fii nii maanaam jàmm ju bëri te ñooñu dañoo xeex xeex ba jàmm jooñu noonu mën fi des te tamit réew boo koy ut nekkul ci ay fitna nga koy amee gis nañ fi Ablaye Wade def na fi vingt six de d'opposition tëj nañ ko fii yóbbu ko prison def ko lu ne mais musul yee fitna ci réew mi ba bis yàlla di ko jox réew mi donc man ànduma benn yoon ci loo xamante ne woote ay fitna ay violence parce que man ci fu ma bokk dañoo am ay principe nu ñuy doxee principe mooy lan mooy ñun dañuy doxe ci ay valeur ci ay dignité di dox ci xam-xam delluwaat di jox di dox ci jàmm loolu principe yooyu noonu bu ñu gisee keneen kuy wàcc ci yoon boobu noonu ñun duñ ci mus a ànd loolu moo tax ñun képp kuy woote violence ñun ànduñu si parce que réew kenn du ko ut kenn du ko amee ci violence wala ci fitna parce que violence mënul développer réew mënul suqalee réew mënul développer maanaam avancer loo réew réew jàmm moo koy développer jàmm jàmm bu amee réew ci réew rek réew mi day développer donc man le président Ousmane Sonko dafa war a xoolaat communication yi muy communiquer dafa war a xoolaat dafa war a xam ni ci état la ñu nekk quelle que soit la situation même bu dee ñun ñëpp constaté nañu. que gouvernement bi da ko bëgg éliminer politiquement mais il peut gérer assumer ses responsabilités mu gérer situation bi avec diplomatie loolu moo koy may grandeur loolu moo koy may mu homme d'état gis nga tous les grands hommes d'état hommes d'état yu mag yi nii yëpp doonoo nekkoon ay révolutionnaire di xeex contre pouvoir maanaam fu ñu jaar moom sax jaaru fa boo xoolee ay Nelson Mandela ay ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ba ci Abdoulaye Wade ak ñeneen balaa ñuy jot pouvoir ñëw fii ne bëgg dindi système bu fi nekkoon balaa ñu koy jot dañoo xeex subir lu ne daj lu ne dugg prison am lu ne en finalité fan la ñu mujj mooy jot nañu lu ñu bëggoon jot kon il boo jëlee benn yoon nga koy xeex il faut ngay assumer say responsabilité bañ a wekku ci askan bi ba pare di sacrifier askan bi tey jii nii bu wootee askan bi waaw mu woo leen mu ne leen par exemple bu ma nekkul candidat élection du am loolu mooy lan comme bu ma nekkul seen yéen samay nit ñi dem leen ngeen ngeen ngeen ngeen perturber élection yi wala ngeen yàq élection yi su boobaa ñan ñooy perte du moom day fekk moom mu ngi seen kër ak ay doomam toog askan bi mooy génn ci biti di rayante di xeex ak policiers yi te parce que état tam du ko bàyyee noonu l' état c' l'État c'est lui qui détient la force moo yor pouvoir bi moo yor force bi moo yor lépp du bàyyi ay nit di yàq loo xamante loolu mooy institution su boobaa état bi dina jaakaarloo ak ñoom après dee yi bu amee nan lay nan lay demee du moom mooy dee du ay doomam askan bi ñooñu noonu muy woote di dem sur le terrain waaye affaire yooyu loolu na war a def dafa war a def appel à retenue mu woo ay njabootam woo askan bi ñu ànd ak moom ak ñu ko gëm mu changer discours def discours de la paix am na lu muy demee Sénégalais yi ñëpp dinañu ànd xeexaat comme lu ñuy xeexee troisième mandat bi pour que moom mu mun a bokk wala ay affaire yooyu mais ba ci léegi rek lu waral moom mënul bokk je pense que histoire bi dafa yàgg ba fu ñu toll nii tey jii nii il faut que moom mu xam ne dafa am lu mu soxla te lu mu soxla loolu noonu lu rëy la te tamit boo nekkee ci yoon boobu noonu war nga mun a moytu lu bëri mais erreur yi yëpp bu demee ba toll fii nii c'est parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs il a fait beaucoup d'erreurs par sa communication par ses communications par ses loolu il faut ñu wax ko il ñu wax parce que li ñu mënta nekk état état la bu muy jógee CND Ziguinchor di war a ñëw Dakar defoon na fa erreur de communication bu muy naan dinañu def suñu caravane ba ek daga Dakar dem déloger le président de la République loolu ku ko musoon dégg état boo ko musoon def maanaam balaa ngay jeexal wax ji dañuy dem di jël si la parce que loolu genre tentative de coup d'état la ku ko mënta def dañu laa ne kii nii il est pour faire un coup d'état ou bien pour maanaam tout faire le trouble à l'ordre public ku ko mosoon def ci réew jël si nañ la tëj nañ la léegi nag loolu moo tax ma ne communication yi si dina bëri mooy dugal boppam ci ay erreur mooy tax état bi di réagir population bi nag il faut ñu xam loolu on a état la ñu yor te état tamit nekkul fi di yaafuus dafa war a assumer ay raisons parce que moo ñu fi nekkal dañ ko jox pouvoir yëpp pour mu diriger réew mi donc waruñu nangu violence yi wala ay affaire yooyu noonu ay nit ñi bañ a nekk ci ay sécurité ay affaire yooyu donc man loolu moo ci nekk sama gis-gis ci affaire bi. voilà dernière question si tënk rek gis naa ne euh, da ngeen di soutenir euh, candidature bu professeur Mary Teuw Niane euh, pour élection présidentielle bu deux mille vingt quatre lan nga ñu si mën a wax si tënk. woy je pense que nous nous sommes bien déterminés pour. ñi accompagner le professeur Mary ñaan Niane te professeur Mary Teuw dafa doon nit koo xamante ne eh, je pense que eh, dafa am lu mu indi loo xamante ne ñun ñëpp daf ñoo convaincre ci loolu parce que tey jii nii dafa doon nit koo xamante ne dafa am fu mu jaar fu mu jaar ba egg fii am xam-xam am compétence nekk om d'état ñi am moom ci yaakaar tey jii nii ku mun a remplacer le président wala ku mun a ñëw pour sauver réew mi vraiment ñun doy nañu ci loolu parce que euh, ñun dañoo war a romb dañoo war a ja romb je maanaam ci di fal président de la république sans un programme te loolu gis naa ne journalistes yi war nañ ci jouer rôle bu important parce que tey jii nii bu ñu nekk ci plateau yi di invité ay nit ñoo xamante ni amuñu benn xam-xam amuñu benn jaar-jaar amuñu fenn foo xamante ne mus nañu participer ci maanaam développement réew mi lu ñu mun a mus a def quelque chose de concret nekk ci plateau yi di tànkal nit ñi journalistes yi di leen may buzz di leen di may promotion xam nga ñooñu noonu nekk fii ni occuper le terrain politique ba nit ñi am ay nit gars yi dafaat éeréel fal ko par accident wala ko que par amour wala par leneen politique politicienne boobu su boobaa dañuy am président boo xamante ne dafa ñu tardel parce que ku amul programme munoo ñëw ba nekk ci réew mi doog naan da ngay créer sa programme loolu si impossible programme da nga koy def am vision programme vision la vision la projet la boo xamante ne da nga koy def bala maanaam sa gis-gis ci réew mi lan moo lan nga war a indi pour yow ak ñi nga nekkal pour ngeen mën a sopp soppali réew mi nga xamante ne jafe-jafe yi nekk ci réew mi maanaam dina mun a deñ ñoom ñëpp dinañ mun a am jàmm professeur Marito naan loolu la def dafa ñëw indi ay principe mu ne un leader politique ak ay militant am nii la war a doxee suñu principe principe suñu mouvement bi si ñetti principe la tënk principe yooyu noonu mooy lan dañoo seetlu ne suñu réew mi dañoo perte suñuy valeur suñu dignité valeur amatul ci réew mi dignité amatul ci réew mi boo gisee fitna yi coow li affaire yooyu noonu parce que dañoo perte suñuy valeur yu suñu maam yi bàyyi woon fii nii valeur yooyu noonu nag il faut ñu indiwaat ko ci réew mi beneen bi mooy xam-xam parce que dañoo néewal doole xam-xam si réew mi ba ci gouvernement bi ñu am xam-xam ñoo néew ba ñuy jël ñoo xamante ne amuñu xam-xam wax rek lañu fi nekkee théorie ñoom la ñu gën a favoriser par rapport ak borom xam-xam yi te réew mënul développer sans xam-xam xam-xam mooy développer réew loolu moo tax principe boobu noonu tamit mu ngi si ñun beneen principe bi mooy jàmm. réew mënul développer fu amul jàmm si jàmm rek la réew mën a développer ci biir ñent pro ñetti propos euh, principe yooyu noonu dañoo am benn programme boo xamante ne programme bu élargi si secteurs yi yëpp avec des pro des des des programmes maanaam yoo xamante ne mooy programme phare yi ci domaine yëpp éducation santé nga xamante ne yaakaar nañu lii buñ ko bu ñu nekkee président professeur Mary Teuw bu nekkee président avec son mouvement il peut changer bokk de choses parce qu'il a fait là où tout le monde fu ñëpp doon wax ne mënul nekk def na ko mu nekk fu ñëpp doon wax ne lii ni c'est impossible egguñu foofu président Mary Mary Teuw Niane wan na yi ñun mun nañ ko def am nañu boroom xam-xam yu ko mun a def te suñu réew mi mun nañ ko def loolu moo tax moom tamit bu ñëwaatee mun nañu lii ni c'est possible mun naa ko def c'est parce que am na ci yoon am na ci gis-gis leer na ko ne bu jotee réew mi am na fu mu mun a jaar ba loolu noonu mun a nekk loolu moo tax dañoo war a nekk ci domaine moment boo xamante ne suñuy président ku ñu war a tànn pour mu jiite suñu réew mi dafa war a nekk nit koo xamante ne ku am xam-xam ku am jaar-jaar ku mel ni professeur Marito ñaan ñi bañ a wax ne question politique politicienne yi parce que loolu moo yàq réew mi tey jii nii maanaam na nga am sa xaalis rek dugg ci réew mi di may di joxe nit ñi di di la waxee di def say promotion te amoo benn xam-xam yow ku joxoon sax am dëkk wala leneen mënoo ko diriger ñi dal ci loolu noonu ñu indiwaat problème ay question de base ay politique les journalistes yi ñoo war a jàpp pour sauver le Sénégal maanaam boo leen demee ba xam ne ñii nii ils ont des compétences am nañu ay compétences am nañu ay xam-xam am nañu opportunité pour téye réew mi yéen a war a toog ci biir plateau yi ci débat yi ngeen di xamal sénégalais yi ñii nii ak ñii ak ñii am ngeen si ñoom yaakaar pour ñoo xamante bu ñu jëlee Sénégal yi xam ñii ñooy kan ngeen di wax seen jaar-jaar lu ñu def loolu mooy tax suñu Sénégal ñu mun ko sauver parce que tey professeur Mary Teuw Niane c'est vrai am na ñu ko xam am na ñu ko xamul mais tey jii nii xam naa ne nit ñu mag yi ñëpp xam nañu moom mooy kan lan la mun ak compétence yu mu yor pourquoi ñooñu noonu mënuñu ko jottali ñoo xamante ne xamuñu ko. mu ñu mën a kii mooy kan. merci beaucoup Mamadou Mara Sarr ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci beaucoup Ndeye Comba jaaraama. voilà may fàttali ni yow yaay chargé des affaires institutionnelles bu euh, bureau de l'organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique au Sénégal nekk membre euh, bu mouvement pour la transformation euh, nationale merci beaucoup Mamadou Mara Sarr jërëjëf. merci